ñu ngi fii nga xamante ni mooy euh, benn dëkk ñaari gaar la capitale du rail muy euh, Thiès fii nag euh, boo wax boo ko waxee wax li nga xamante ni moom mooy chemin de fer fii ñu taxaw nag mooy euh, gaaru chemin de fer bu Thiès fii nag li ñu tax a jóg mooy arrêt travaux yi nga xamante ni moom moo fi am mais arrêt li nga xamante ni moom mooy wagon yi yuy daw pour le moment am na wagon yi nga xamante ni ñu ngi daw mais aussi li nga xamante ni moom mooy chemin de fer bi lu muy générer ci emploi quand on parle de chemin de fer on parle de l'économie on parle du poumon de l'économie de la ville de Thiès pour le moment gis ngeen li nga xamante ne moom moo fi xew teg bi mi nga xamante ni am na fii nga xamante ni moom mooy euh, ci de ni euh, moom mooy chemin de fer bi lu muy générer ci emploi lu muy générer aussi ci économie wu euh, Thiès loolu yëpp ko waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy ñoom ñoo fi nekk en tant que responsable mais aussi rencontrer cette jeunesse de Thiès mi nga xamante ni le chômage criard daanaka am na fi mais aussi li nga xamante ni tey jeunesse yi ñu ngi ñu ngi koy ñaan muy li xamante ni mooy euh, xëyu ndaw ñi les programmes yi nga xamante ne état du Sénégal da ko lancé programme yi ñoom itamit ñu war ci gis seen bopp ndax Thiès ku ko wax wax euh, manque d'emploi Thiès ku ko wax wax li nga xamante ni mooy économie boo xamante ni fu mu toll ni demeewul noonu li ko waral nag euh, tey chemin de fer bi bokk na ci yeen ndax bokk na ci lii tax ñuy naan Thiès dafa doon loo xamante ni chemin de fer moom mooy poumon wu économie wu Thiès donc bu nekkee ci arrêt wala bokk demeetul ko mu nu mu daan demee dafay am impact ci njeexitalu askan bi génnunu mais dafay am njeexital ci li nga xamante mooy wàllum xëyam euh, xëyu euh, ndaw ñi alors ce chemin de fer avec tout simplement milliards euh, mën na générer plus de emplois emplois yi nga xamante on parle des emplois directs mais aussi li nga xamante mooy la chemin de fer mën a créer moo tax tey ñu ñëw fii ba Thiès ñi nga xamante ñooy les anciens cheminots rencontrer ñi nga xamante ñooy chef de gare mais aussi rencontrer cette jeunesse bi nga tëx ci beneen secteur lañ ko teg mais rawatina wàllum secteur secteur transport la mais aussi mu doon secteur boo xamante ni euh, ci wàllum Jakarta la ñuy la ñuy yëngu on va essayer de rencontrer ces jeunes là discuter avec eux pour ensuite discuter avec les chefs de gare et les impactés euh, du chemin de fer de Thiès. ici au niveau de Thiès bari na ci loo xam ne les politiciens dañu rese à rate ci lu mu mën a doon vraiment ci nguuru président Macky Sall te ndaw ñi mën naa wax ni tey jii bu fekkee président ñëw na accéder au pouvoir ndaw yi fi nekkoon. nga xam demoon nañu ba décroiser ci nguuru président Ablaye Wade ñëpp am yaakaar jëm ci son excellence président de la république Macky Sall di ko xeexal ndaw yooyu tey ñoo gën a sonn ñi ngi ñaan nag son excellence président de la république mu gestu ndaw Cees yi parce que nag vraiment neexul ba neexul mais li fi gis yëpp ndaw ñuy muñ rek ñoo fi nekk te liy jot ci ñoom yëpp jot na kër yu baree baree bari tey da ngay gis ndaw ñi nekk fa même ba ci luñ fiy séddale loo xam ne askan wi cee war a am dañ ciy fàtte ndaw ñi tey ji bi ñu démarqué Mbour wax ko ndaw ñu bëri dañoo dem bindu mais bari na ñoo xam tey ñi ci bénéficié wu da gis ne ay boroom loxo lañu wala ñoo xam ne am nañu ay këri kër ba pare ñooy dikkaat di ko xëccoo ak ndaw ñi pour dem di fa dëkkaat encore une fois ñu may ndaw ñi seen sens te xam ne ndaw ñi rek ci dëkk bi la ñu bokk ndaw Cees nag gàcce ngalaama ak lépp lu ñu mën a ñàkk ñi ngi ànd seen ngor ñi ngi ànd ak seen jom ñi ngi ànd seen fulla ñi ngi ànd seen fayda parce que li nga xam ne mooy ay coow nekk ci dëkk yi ñëpp ko dégg ci dëkk yëpp gis ñu ko Cees kees am na lu ñu bëgg seen xar kanam changé na te xam nañu dëkk bi ñoom dañ cee am ay responsabilité activité bi fi am ci wàllum ndaw ñi actuellement ni mooy li ñu la wax sànq Jakarta parce que li tax mu doon Jakarta mooy phénomène la tey ji ñi nga xam ñoo dikkoon tey bëggoon xëyum ndaw tey ji da ngay xool presque ay quat et quelques déposé nu woon ci fonction fonction publique bi passé tey boo xoolee Thiès ak département bi yëpp ñaar ñoo ñoo ñoo ñoom lañ ci jël tey ji boo demee Mbàkke jël nañ fa lu bari soo demee Touba tey dem nañ fa lu bari boo demee Dakar jël nañ fa lu bari mën nga dem Louga jël nañ fa lu bari mën nga dem Ndar mën nga dem Matam mën nga dem Ziguinchor ainsi excellence le président de la République na wax ci ubbituk euh, chemin de fer la régie de chemins de fer bu njëkk Thiès neexoon na parce que da nga daa fayeeku le 27 le 28 bu njëkk Thiès neexoon na y la NSTS hmm? mais na ubbi la NSTS na ubbi usine traverse na ubbi euh, régie des chemins de fer xëyu ndaw yi bu ko defee sax gaa ñi gis ci seen bopp mais bu ñu nee xëyu ndaw yi bu ñu nee xëyu ndaw yi mais ñi nga xam ni pratiquement dañu jàng yéeg seen i dem di jaay café Touba wala ñuy dawal Jakarta président na xalaat ñooñu. fii cees métti na la NSTS mi ngi nii suñu ginnaaw mais ubbi ko hmm, vraiment au moins taux de chômage bi wàññeeku. la régie des chemins de fer mi ngi fii man samay ndijaay ay cheminot la ñu woon hmm? dañ ci doon gis suñu bopp bu baax a baax a baax usine traverse mi ngi nii président jàppaleel ndaw yi yaa fi nekk yow lañ koy ñaan li lay rasul yi mais xëyu ndaw yi du ma ni ndaw yëpp gis ni seen bopp non parce que bu ci ndaw yi gis seen seen bopp deux pas yoo dox café Touba la ñuy jaay deux pas yoo dox arrêt Jakarta mais loolu yorul avenir u ëllëg. bon man pratiquement man damay jàngale. waaw damay jàngale mais su ma demul école maintenant euh, ma jéem a ñëw ah jàpp ci liñ fi gis muy Jakarta ñu jéem a ñëw maintenant jàpp ci liggéeyu Jakarta bi pour jéem a mottali maanaam ah yenn affaire yi xaw a des ci kër gi waaw ndax xam nañ ne salaire surtout dans le privé enseignement doy na waar moo tax nag ah ñu ngi ñëw ci Jakarta ji fekk ci si samay morom yi nga xam ne ñoom saa yu ñu xëyee ñoom it ñu ngi fi ah nee nañ cees nag ah loolu de lañ fi gis Thiès li fi ne ci Jakarta moom bari na lool sax ah amoo leneen looy def gisoo leneen looy def ah nga jëm jéem cee góorgóorlu rek. am na yenn âge yoo xam ni soo ko amee nga nekk sa yaay nekk ak sa papa. amaana toog di jàng di jàng di jëmale fukki an xamul dala dul gënal quoi li lay gënal mooy nga dem wuti ci loo jàpp pour mën leen soutenir parce que ñaata nekk sa papa nekk ak sa yaay ci biir kër gi amaana yow transport bu la yóbbu pour nga jàngi sax doo ko am bu fekkee nag borom jom nga am nga loo bëgg da ngay da ngay mujjee bàyyi études yi dem dem dem dem liggéey ngir nga wut loo leen suturaale donc loolu kese moo waral nit ñi di teel a bàyyi pour nekk si business ñàkkum xew bi ñu nemmeeku fii ci cees doy na waar lool ba tax na ndaw ñi di laaj nguur gi mu dëkkalaat saxaar si bu ñu sukkandiku ci kàddu yi Maxu Ndiaye seen kilifa wu gaax bu cees moom mi ngi ñuy xamal ne saxaar si bokk na ci luy am njeexital yu am solo ci koom-koom réew mi rawatina ci xew yu ndaw ñi. bi arrêté woon fer ko yokk parce que jeunes yu bëri chemin de fer lañ xamoon xëy na sax li nga xam ne xale yi nga xam ne ils sont nés vers les deux mille dix ñoo parce que le chemin fer en dehors des emplois directs y a des emplois indirects parce que chemin fer même si am na ñoo xam ne si ne c'est des prestataires am na ñoo xam ne si ne c'est des journaliers qui sont dans les ateliers d'autres y a des euh, des à faire sur la voie on les prend dix jours quinze jours un mois di leen fay chaque mois y a un dimo ay dimo loon ko tudde woon dimo yoo xam ne seen xale yi dañ ko doon rang seen faire day am ay travaux de réflexion euh, sont pas les ouvriers qui sont sur place bu bëggee main d'œuvre dafay les jeunes de Thiès un mois deux mois quinze jours vingt jours ainsi de suite loolu xale yi dañ ko yëg bu baax ndax dañu doon gis seen bopp vraiment. Express International tey gare bu mu taxaw trente minutes rek il laisse des millions gare bu mu taxaw trente minutes de stationnement il l'express qui s'arrête dans une gare pour faire un croisement de 30 à 1 heure de temps, qui a de 1000 voyageurs. Chaque voyageur dépense 1000 francs pour ndox lekk jënd li jënd caaf jënd caaf ça un 1 million dans 30 minutes. police ñi nga xam ne doo ñëw di jënd seen marchandise ci saxaar bi di dem di jaayiwaat jigéen ñu bëri boo demee dans les villes comme Kaffrine Koungheul Koussanar Koupentoum ainsi de suite dëkk yooyu saxaar gi mosoon egsi des milliers de femmes ñooy ñëw ci gare bi jënd ay gros ay cuub ay produits maliens dem di ko jaay dans les marchés comprenez bu au retour nga dem gaar bu mel ne Diourbel foofu nga xam ne marchandise bu am série yi jigéen ñi doon jaay produit yi jigéen ñi jaay maliens yi dañ ciy jënd de milliers et des milliers di yóbbu donc économie daf économie daf doon dox chemin de fer ak le chemin de mais depuis arrêt boobu am dëkk yooyu vraiment dañu sentir arrêt wu. ah Thiès moom c' est la capitale du rail vous ak marché marché bi ak gaar bi ñoo taxaloo donc boo ma soon dugg marché da ngay def ne au marché euh, euh, dans le marché du Mali à Bamako. boo mosoon dugg la le marché du Thiès da nga naan téye au téye à Bamako tellement que produit malien yi dañ fa bëri woon jigéen ñi dañ doon jóge fii Thiès di dem foofu di jënd marchandise di indi fii di ko jaayaat di dem bi express taxawee sax jigéen ñu bëri ils ont pris les avions di dem ay Dubaï ak ay yooyu yëpp or que bi express di daw gën woon Dakar Bamako donc cees aussi moo ci gën a impacté ndax cees vous savez que ville cheminote la yaa a que des cheminots le chemin de fer la ville de Thiès ñëpp a ngi doon gis bopp donc bi saxaar gi taxawee à Thiès ñoom ñoo ci gën a yëg ñoo gën a yëg euh, métier bi vraiment le chemin de fer emploi am kenn mënu ko takk c'est énorme j'ai des milliers des plus de 4000 à 5000 chemin de fer mën na parce que imaginez de Dakar à Kidira à Kidira il y a combien de gares chaque gare emploie des des des des des des des travailleurs ceux qui sont sur la voie ceux qui sont euh, dans les ateliers ceux qui sont dans les Donc, euh, euh, euh, en matière d'emploi, le chemin de fer euh, peut générer plusieurs, plusieurs, plusieurs emplois. Euh, fii chemin de fer daal boo gisee manquement du dara mooy raay bu baax ak ay ay bopp saxaar liggéeykat yi bu ñu amee ay bopp saxaar am raay bu baax am ay wagon liggéeykat yi di liggéey tout est possible parce que les cheminots c'est des génies c'est des génies chemin de fer industrie la du entreprise simple ñun. amul lu ñuy jàngi si wàllu chemin de fer si euh, àdduna bi amul fenn fu ñu koy jàngi jee xala xam-xam bi yëpp mi ngi fii li des mooy jox ñu les moyens euh, ba nga xam ni ëllëg ñun lu ñu bëgg a defaraat na chemin de fer meloon nos ateliers di marché comme lu mel ni forge fonderie euh, atelier de fabrication des pièces dépôt yeeg yëpp di dox il faut que président ñëw dugal si loxoom ak doole xam nañ ni mi ngi si te am nañ ci yaakaar Euh, ki mu fi indi aussi tamit mi ngi ànd ak liggéeykat yi collaborer li ko président sant mi ngi koy def loolu ñun mën nañ ko seede mais li li ëpp solo mooy euh, ñu ñu ñu ñu accélérer liggéey bi ba pare tamit jox ko xaalis bu ma sëkk ça fait liggéey bi ñu mën ko réaliser quoi sans cela tamit euh, vraiment du sotti mais président daal ñu ngi koy encourager di ko wax ni les cheminots ñu ngi si ginnaawam am nañ ci moom yaakaar parce que il est le président de tous les Sénégalais